غادر المريد مملك صوب لدى مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أين ثمد وباغ سبحان سوك نف وواغ ننسان تتيف ديف تويد بعد صلاتنا على الوحيد te seetlu yonel yi ñëwoon ci dunya waxe kàddun lan wan ku nekk wey na te seetlu xeyru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasulun xalxalal lin mu doon dunya suran karak taboo diya ga duñ ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul mbakki lu bàyyi sunu maam cerno ibrahima yaari xew wi ko yetteel fa daarul fi xew wi le di mbetteel ab seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafkima أبكي على خليل إبراهيم أحمد بن جول أسمى قديما جنتك جايما أمشر إبراهيم ويرنك جاي ليلا بدا قيما كما ماتن ويركر وجاينا نافل كرم توبتون ما جاي سيسان دامل سنجن دارو jaal sasin cey yalla maa ka waaru warootina waaru gara gawan daawu jommetina mi ngirine reen waawu ayna alhaali galilillahi way jalaleen masaana jaay lillahi ayna la fardi qalilillahi imam ceerno ibrahima baabullahi عين على خلد الورى خليفة القديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن mi ko ñaanal wirdu def ko sëriñ fu muy jëlee di fardu mooma fa daarul Abdul Xaadir ci darajaay sëriñ ba Abdul dellu ma may musabbi atul asri dellu ma may maqus waxtal asri sahaabatan ridal bi duna suq moo ma ko waruloon fa daarul mukti ma jooy la ahmadu awa balla baayam ba mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu leen ñoo bu gën a tedd di jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko fi lool ci wéral ko di ci teg sëñ Bassirou Anta Niang fi nekkal borom a yàlla ko yàlla yàggal. di ci teg nag sunu jàmboor ji nga xam ne mooy sëñ Mbacké Dabassar ñu gën ko suñu mbokk yi gën ko xam sëñ Mbacké Dabassar. muy joo xam ne ni ko waxee rek moo ñu nekk moom daal la ñor ko lu may lislaam ak diine rek moo ko ñor. waaw boobu nag di daal man gee ci Touba nga daal man suñu suñu ni nga ko waxee rek dama naan jàmbaar la joo xam ne ah doomu maam Thierno Ibrahima la yaakaar naa ne sëñ Abdourahmane bi muy ne mu daal man de ko sañ si boobu daal maa ne na loolu métti na waaye nag ak doogam ak njàmbaaram ak fitam moo ko may ba lee fa nekk tey nekk fa yaakaar naa képp ku ñëw daal man gis ko ak ban koy sañ 1944 ak tey jii 2003 bi yaakaar naa ne ah kenn ku ne da xam ne xiir daal man soppeeku baax loolu lépp nag ak dogoom ak moo ko waral dafa nekk ba 1972 mu la sëñ Abdourahmane doon sëñ Modou jóge na sëñ Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekk yàlla na fi yàgg lool ci wér ndax taxawaayam day kenn ku ne rafet na ko déwén tuwaag Mbàkke de yaakaar naa ña fa nekk di ay mbokkam moo njëkk a nekk mu nga xam ne moo nekk mi fi nekk kenn ku nekk yaakaar naa bàyyi nga ko xel te li tax ñu bàyyi ko xel dana ko gis ci moom lu jar ñu bàyyi xel ndax moom dara ñoro ko lu may ak ja jaamu ak liggéey demut fenn demut fenn waxut leen demut fenn mi ngi rek mi ngi jàmm di yam yàlla na ko dégg sëñ bi santaane loolu nag nga xam mooy sëñ Abdourahmane mhm. jàmbaar la joxone jàmbaar joxone kenn ku nekk ak jàmbaaram xam na ko kenn mi sëñ si daaru ma naan mboolem ma ngi fa nekkoon nekk fa ak ñoom moo yor seen dundu weer weer si déwén kenn ko xam ne sa soxna am nga gone moo la jox tu xam tudd képp ku ma dem néeg góor moo la fa yóbbu kon nag sëñ bi man ah, man daal noonu mën a koy mbiram bis bi nag bis la boo xam ne bis bu bu jar a màggal la moom waxuma la maanaam eh, ab tab waaye képp ku dib jullit rek war nga koo màggal ndax sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi bàyyee maam Cerno njaboot gi ba di dëkkee lam ko bàyyi woon dara manqué wu ci dara ruuru ci ba bis bi nga xam ne ci lañ njëkk a dajawaat mooy bisu màggal gi mhm. na màggal ah, na mhm. eh, a day maam Cerno yaakaar na waxante nañ fa loo xam ne xool seet na fa loolu moo taxoon sëñ Fall nag bisu bisu te bis bi mu dem mooy ne bis bi mu njëkk mooy tey na bisu mbégte la mhm. moo tax nag képp ko fi nekk yaakaar na xool sedd na ni ko waxee nag yàgg na sëñ bi ni ñu siyaar bi rek fii dara banque yu fi mhm. lépp loo xam ne war na fi sëñ bi def na ko taalibe yi yàgg naa daal saba saba yàlla daal ñëpp yëpp seen xol dana gën a sedd moom nag ñu koy ñaanal aw fanam gën a gudd mu gën a wér lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam ak waajuram sëñ Abdourahmane yàlla may ko kattan ak wér ak wërsëg mu ko defee ñun ñooy suñu xol dan suñu xol sedd na suñu xel na ci moom baax a baax a baax ñu ngi sant baax